laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah abonné leen ci seen seen YouTube Darou ci seen seen YouTube Darou Fall TV mbokki yi jërë ngeen jëf yéen ñi bàyyi xel Daaru Fall TV ci biir réew mi ak ci biti réew ñu ngi nuyu ñëpp tey ziar ñëpp tey sant baax ci bàyyi gi xel gi ngeen di bàyyi xel bi la jotaay yi ñu jot ndigal lu jóge Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général de Mouride yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér wàcc ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall jaare ko ci sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda Fall xalif maam Cheikh Ibrahima Fall na fi yàgg lool te ànd ko wér mais bisub Zikrullaa ñu koy amal foofu ca Touba ci kanamu sëriñ Mountakha Mbacké moom ci kàddu ko jox kàddoom asalaamaaleykum warahmatullahi taala wa barakatuh mooy kàddu yi ni jiite suñu kàddu mooy di tuubal suñu borom tabaaraka wa taala tuubal tax nu bind tuubal suñu doo seerwaal ci baatu ndigal ba nga xam ne daa jógoon ba na fi te eh, su suñu dégg des nag ñun ndax noo yaakaar ni kii wax ak noonu daa waxoon juróom-ñetti waxtu ba fukki ci guddi ndekkee juróom-ñetti waxtu ba fukki waxtu ci suba rek la loolu ñaari waxtu rek la ko ñaari waxtu la lim daan doon ñaari fan ba ak fan ten ten wax ko fukki ña juróom-ñetti waxtu ba juróom-ñaari waxtu ba fukki waxtu nag moo tax ma yaakaar sax man fukki waxtu yu gudd la waaye ma nooy tuubal yàlla dina tuubal nag mboolem ku ku sa ku sa ku rek yaa mun tuubale sëñ ba nopp nooy tuubal yow nga xam ko sëñ bëggee mooy juróom-ñetti waxtu rek ci suba mooy huit ba dix heures ci suba kon tur yàlla ñaari ñaar rek lay doon naa kon ñi fa xasida soog ca tàmbalee nag ñoom waaye noonu la ko mën a waxee rek waaye no ku jot kàddu yi nañ dimbalaa li la waxoon rek na na na na woo kam ko joxoon ni ko rek kàddu yi kat du yooyee mooy yi nag ñu tuub baax te jégalu te te ñaan ngeen jégal nu déglu métti na dégg métti na kon nag dégg kàddu suñu bana fi nañ ko waxee woon du noonu noonu tuba yàlla den tuba rek ñu tuba sëñ bi den tuban kon daal ajuma la waaye nag juróom-ñetti waxtu ci suba la ba fukki waxtu ci suba rek muy ñaari waxtu rek ñaari waxtu yi rek la bëgg tudd yàlla kon loolu na ko ñëpp bàyyi ak jàppandal ak si ne suñu tudd yàlla ren ba dente ndigal ci sëñ bi la lam digal a noonu kon sono seen saa rek doy noonu ba ren ba deen noonu yaa ñaari waxtu la wax kon nan jottuwaat kàddu yi rek man ma maa ko jottuwaat ñoo waxoon ñëpp deen tuubal nag dégg nga xam ne dégg ngeen loo xam ne yoolu ma ko maa ngi tuubal yàlla deen la ilaha illallah. abonné leen ci seen seen ci seen YouTube Darou Fall TV. ESPE e di entreprise service plomberie électricité di yëngu ci wàllum courant ak ndox di ay gone yu xarañ lool tamman lool seen liggéey képp ku am bâtiment boo bëgg liggéeylu li jëm si wàllum plomberie électricité jokkoo ak bii di SPE di nga fa fekk ay gone yu xarañ lool tamman lool seen liggéey ESPE e, entreprise plomberie électricité yëngu ci wàllum courant ak ndox salle lépp loo xam ne bëgg ñu montel la ko ci wàllum bâtiment jokkoo ak entreprise bi ngir nga jokk jokkoo ak ñoom contacteel 78 124 57 12 wala 77 786 00 55 entreprise SPE service plomberie électricité di ay gone yu xarañ lool taman lool seen liggéey. La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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah